bu fàtte dal bi démb moom c'est bien dégg nga lii dal
mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suratul infitar ida samaa infatarat in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ñu ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yu màgg yi mu ñuy dundal ci chahru ramadan mu des ci ay bis yu néew wërsëgul it ñu ñu daje ci ab néegam di jàng ab téeréem ñu ngi koy ñaan moom mu ñu dëppale ci loolu yàlla nañu boole nangul lépp te defal ñu ko yiwu àdduna ak yiwu alaxira kon bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انجسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فيه أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم suñu boroom subhanahu wa taala mu ne ida samaau fatarat bis bi nga xam ne asamaan dana faq xotteeku mi ngi noonu ubbeeku def ay bunt wa ida alkawaakibu intasarat la nga xam ne mu bis ba nga xamee ne it biddiw ya daañ tasaaroo wa ida albihaaru fujjirat bis bi nga xamee ne nii géej ya dees na ko bewal génne leen fañ leen tënkoon wa ida alqubuur busirat bis ba nga xamee ni bàmmeel ya dees na leen jàllar bi génne lépp lu nekkoon ca biir alimat alimat nafsu ma qaddamat wa axarat keroog la doomu aadama yi xam lépp lu mu jiitaloon ak lépp loo xam ne yéexe na ko desal ko gannaaw yaa ayuhal insaan ey yow doomu aadama maa xarraka bi rabbika alkarim lan moo la wor ci sa borom bu tedd bi alladi xalaqaka fa sawwaak moom mi nga xam ne moo la bind ca gannaaw ba mooy ka nga xam ne moo la melal def la jëmm fa addalak mu def la ku jub ku diggu doomu nga taxaw tem fii ay suurati ma shaa rakabak ca melokaan ba nga xamee ne moom la soob ca la la tegalee bind la ca kalla bal tukazibuuna biddiin déedéet donte ne yéen a ngi sax di weddi la nga xam ne mooy pay ba ay bisu pay ba wa inna alaykum la xaafizin moo ne day nekk na ci yéen ay wattukat kiraaman kaatibin ñu tedd ñoo xam ne ay bindikat lañu yaalamuuna ma tafaaluun ñooñu day xam nañu li nga xam ne yéen a ngi koy jëf inna al abraara la fi naim ña nga xamee ne ñooy gaa yu baax ya day ñoom ña nga ca xéewal ya wa inna al fujjaara la fi jahim amma ña nga xam ne dañoo bewoon génn topp muy fujjaar ñoom day ña nga ca sawaras jahim yaslawnaha yawma ddin dees na leen ca béel tabbal leen ca la nga xam ne mooy bisu pay ba wa ma hum anha bi ghaibin ca ñoom day ci safara soose duñu nekk mukk ñu fay faddu duñu fa génn ba faw wa ma adraka ma yawmu ddin ma lu lay xamal lan mooy bisu fay ba summa ma adraka ma yawmu ddin gannaaw ba moom lu lay xamal luy bisu fay ba yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a mooy bis bi nga xam ni benn bakkan du moomal moroomu bakkanam dara wal amru yawma idin lillah su ko defee mbir ya bi su keroog lépp day dellu ci yàlla mbokk suñu yonent salallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne man sarrahu an yanzura ila yawmi alqiyamati ra'ya al'ayn falyaqra idha ash-shamsu kuwirat idha as-sama'u infatarat wa ida samaw shaqat yonent bi alayhi salaam dane ku bëgg a seetaan la nga xam ne mooy filmu allaxira naka lay deme na tegale ñaari saar yi rek ñetti saar yi rek ida shamsu ku wiiraat moom lañ jàng démb ida samaun fatarat moom la ñuy jàng nii ak isa samaun shaqat mooy saar bi topp ci saar bi topp ci bii ca insha allah man nam suba lañ koy jàng kon day détaillé allaxira ni muy nar a demee mbokk allaxira ni muy nar a demee doomu aadama yi dañuy dund ci àdduna la soob yàlla gannaaw ba suñu borom dana indi ay kawtéef kawtéef yooyu bokk na ca jant bi nar a fenke sow waaye kawtif ba gën a mag mooy ba suñu borom sante israfil mu daal di ëf ca suur ba di béjjén ba ëf googu mu koy ëf dana tax asamaan xar xotteeku jóoru suñ borom ne in fatarat suñ borom ne in shaqat mi ngi noonu fa kanat waahiya lompañ tasaaroo ca loolu nekk mbokk mbir moo xam ne bu rëy lay doon waaye suñ borom mu ne biddiw yi dana tasaaroo ca loolu it mooy wan ne mbokk biddiw yi dafa nose te li ci bëtu neen di gis sunu maam yi xamoon ko ñu naan la lii mooy ñay bi ñax bi buntu këru màkk yi kaza wa kaza buñ masaan nekk biir géej ci la ñuy gindeekoo ba sa masaan nekk ci lëndami guddi ci la ñuy gindeekoo suñ borom mu ne day tasaaroo donte ne biñ demee ba yàlla may doomu aadama mu créé ay observatoire di gis ay milliards de kilomètres ci jaww ji ca lañ gën a gis ndekati biddiw yu organisation bu rafet a rafet ca la ñu nekkee di daw seen xel yooyu nga xam ne passé na xel ca organisation boobu ak taar boobu dara du ci changé amma nag bis bu suñu borom sant israfil mu ëf léppay rot léppay tasaaroo léppay daal di fay borom bi daal di ñu wax ne keroog géej gi dañ leen di boyal fujjiraat mooy génn nañ fa ñu nekkoon loolu xéewal la ñu yàlla yi won mooy ndekete géej gi yàlla leen tënk te wallahi mi ngi noonu yàlla tënk géejug parcelle gi tënkal ñu géejug mam sumbujun géej tënkal ñu géejug yaraax géej bu nekk yàllaa ko yem loo fa mu yem amma buñ demee ba yowmal qiyaama suñu borom dana tinki tinki boobu géej yépp gëndaloo kaw suuf yépp nekk géej benn géej nga xam ngeen ne fi ñu toll nii suuf boo ko xaajoon ñeenti xaaj trois quarts yépp ndox la amma buñ demee ba yomal qiyaama ba yàlla daal di koy déchaîné mboolem géej ji dañuy roofaloo suñu borom won nañ ci benn échantillon bu tuutee tuutee tuuti ci tsunami bi mu yónni woon fële ca ay indonésie ak dëkk yesus ca moom tsunami boo xam ne presque benn minute la durée géej gi jóg daa di sànni ci dëkk bi lam ca sànni y avait plus de 300 000 morts mu ngi noonu am maa nag yowmal qiyaama mboole mi géej la yàlla di bàyyi ñu roofaloo borom bi nee na keroog la la ñuy génn li nekkoon ci biir bàmmeel yi ca mbokk doomu aadama bi foo mën a nekk ci kaw suuf sa bàmmeel la la nga xam ne moo jóge ci yow suñ borom xam na ko yeneen ci bi alayhi salaam ne suuf dana lekk léppi doomu aadama ba mu des lu ñuy tuddee ajabu zarab nee na benn matière la boo xam ne doomu aadama bi fi kooloon vertébralam jeexe ca suuf fa muy tooge wala fi di ko wax ay ndunk-runk foofu lay nekk ci loolu la ko yàlla di dékkalewaat yomal qiyaama jëmmam jépp mataat mi ngi noonu su ko defee ci seen biir bàmmeel borom bi doo ko joxe ndigal nag bàmmeel yi ubbiku daal di nit ñépp daal di génn bu ñuy génn ñépp yaramu neen la ñuy def comme niñ ko jàngee woon démb mi ngi noonu borom bi nee na nag keroog la doomu aadama di xam lan la jiital ak lu mu desal gannaaw am ñenn borom xam-xam yi wax ne lam jiital ca la nga xam ne def na ko na doon loolu lu baax la ak lu bon la wala la nga xamee ni nii moom kat waroon na koo def ci defu ko julli gam warul woon a julli zakat ba mu warul ba ba mu waroon a génn génnewu ko ila axiri doonte ne ne bokk na ci it ma qaddamat wa xarat mooy lam jiital ci tuyaaba ak i bakkaar bi muy dund ak la ka fekk si ci tuyaaba ak i bakkaar ba mu deeyee mbokk julit lépp loo xam ne da nga koo jàngale muy lu baax bépp sarax boo génne bàyyi sa gannaaw ñu def ko ca jàkka ja def ko ca daara ja def ko ca hôpital ba def ko fuñ mën a def yére ya nga sarxe woon teen ya nga gasoon kaamil ya nga joxe woon ñu cay jàng yii yépp bis boo deeyee tànk desit waa nga fa ñu koy jëfandikoo day ñëw fekk si la ka nga jàngaloon lu baax tànk mi ngi koy jëfe tuyaabaam mi ngi lay fekk si kam ko jàngal kookee kum ko jàngal ba ila yawmi diin tuyaaba ja mi ngi lay fekk si mais le contraire képp koo xam ne nii créé woon na fi ak mbon jàngal nit ñi mbon lu bon loolee tant que ñi ngi koy jëfe gannaawam ba ila yawmi diin bakkaar ba mi ngi koy fekk si lu borom di wax naan naktubu ma qaddamu wa asaruhum la ngeen bind ak la nga xam ne mooy seen gannaaw loolu it doomu aadama bu nekk war a bàyyi xel lan lay jiital ëllëg waaye war a bàyyi xelit lan lay bàyyi gannaaw ëllëg ñu ngi noonu rawatina ci sarax boo xam ne day wéy sa gannaaw borom boobu subhanahu wa taala ne ay yow doomu aadama lan moo la wor ci sa borom bu tedd bi ay ba jaamu woo ko ba wéetaloo ko benn lan moo la wor ci sa borom la nga xamee ni nii moo ci nekk teddaange borom bi moo ko wor mbokk sa moroomu doomu aadama boo ko deful lu ko neexul léegi da lay daal di duma bu lu dumawul première fois it boo defaatee mu duma la amma borom bi yàlla nit day nekk ci kéeféeram ci caay-caayam ci agression am yàlla di ko muñal rek ndax ca dangeem di xaar mu tuub loolu nag war nañu bari ca mooy ñii ñi ngi def lu bon dara fekku leen ci seen xéew li ngi yokk kon ay lu bon li ñuy wax musiba bi ñu wax ak ana yàlla ak yu demee noonu donte ne ni seytaane noon bu mag bi tamit day mébétloo doomu aadama war ko ci gëmloo ko ay pas-pas bu dee yéeféer moom weddiloo na ko yàlla mais bu dee doomu aadama da ngay gis ne sunu bay aadama la jëkk a galgal dóor ci suuf ba mu demee yàlla ne ko garab gee bu ko jege seytaane dafa ñëw ci moom ne ko aadama est ce que xam na lu tax yàlla tere la garab gi daa bañ nga nekk malaaka wala nga sax ba faw ñu ngi noonu illa an takuna malakan aw takuna min alxaalidin waatal aadama qaasamahuma inni lakuma li min annasihin dama leen di lay biir su ngeen lekkul garab bi léegi ngeen génne fi ila axiri man ma ne suñ bay aadama ba mu lekk garab ga gis ngeen kon seytaane waraakat bi day waraate adduna ak taaram bi fi nekk tamit war na nit ñu bari ba fàttaloo leen ak jaamu yàlla moom la borom bi di wax naan laa taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur ay yéen julit ñi fexe leen ba taaru adduna bi bu mu leen wor ba ngeen fàtte seen waru gar seen diggante ak seen borom seytaane it bu mu leen wor te loolu mbokk da ngay gis ci waraakan yi lañ bokk muy adduna ak seytaan ak la nga xamee ni nii moom mooy sa bànneexu bakkan bi sa borom yàlla moo la moom rabbak nga nekk ab jaamam kan moo la war ci moom borom bi di la fàttali moom fan la jaar ak yow mu ne moo la bind naam moo la bind à partir de zéro léeg-léeg sax ba mu lay bind waxuma say waajur yéeguñu ko waaye mën nam sa waajur sax bëgguñu woon nga judd rawatina jamono yi tey jii mi ngi noonu mais sa borom yàlla bind la gannaaw ba yemela la ci toqamani yi ba mu jël la di la defar di la defar ba nga nekk doomu aadama mu daal di lay doon ku équilibré nga xool doomu aadama suñu borom mu ni moo bind doomu aadama fi ahsani taqwim kaw suuf li ñu nekk ci ay espèce kenn xamul ñaata million la mais doomu aadama ci gën a rafet mu ci gën a rafet melokaan taxaw tem gis fas yaa ngi teg ñeenti tànk golo yaa ngi luus luusi gaynde yi kaza wa kaza mais doomu aadama mooy ku jub kocc di mën a taxaw xool ba pare sunu borom rafetal sa melokaan gis nga sa loxo yi tolloo tànk yi tolloo mu may la sa jëmm jooju mu la defal nga mën a fii comme jën yi mën a daw comme gaynde yi mi ngi noonu mën a tëb mën a prier mën a raam mën a béréwu lu ne doomu aadama mën na ko gis ngeen ca loolu suñu borom yàlla mooy ka nga xam ne moo ko def ñeel doomu aadama yi waaye yow kenn ki may waxal kum mën a doon suñ borom mu ni moo tànn melokaan ba ka neex mu melal la ko ca loolu mooy rapport bi yàlla am ak képp kenn ci ñun képp kenn ci ñun boo xoolee sa bopp war ngaa bàyyi xel ne sama borom yàlla ku ma ittewoo la nii mu ma melal amul kenn ku mu ko melal ci ay jaamam te loolu ñaari borom xel duñ ci discuter doomu aadama yi amul benn doomu aadama bu nuroog moroomam ci zahir ak ci batin na doon waxin wallahi tey jii boo dégloon fi benn kaset nga déglu rek ñu ne kii docteur Mouhamad loola nga dégluwaat kii Ousmane Gallaajo la man nga caa waat waat na la moom la lu tax parce que baat bi moom dong moo ko def ci kaw suuf am déet loolu day am doomu aadama yi noonu lañ mel wax nañ leen fi lu yàggul bi ñuy wax qadirina ala an nusawiya banaana di leen won ni xatta li gën a nëbb muy sun empreinte yi nekk sun cati baaraam yi kenn bokk koog sa morom booy dem jël passeport moom la ñuy jël wóor na ne fu ñu ko dugalee ci ordinateur bi mu ne kii dee Demba Diop la kenn amul lu mel nii lu dul moom ci kaw suuf kon sa borom yàlla moo la tànn yow bind la nam ko neexee waaye malheureusement mbokk julit ñun yàlla ñu bind ñu ñuul waaye suñu doom yi nee nañ yàlla da ngaa juum ñun waruñoo ñuul dañoo war a xees daa di xeesal ba weex tal mbokk loolu musiba mënta passé loolu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam da ngay gis ne nee na yàlla rëbb na képp kuy soppi mbindug yàlla gi te loolu cheytaane moo ko waxoon fala amurannahum fala yughayyiran fala yughayyiruna xalqa allah danaa leen tapp bañ soppi mbindinug yàlla gi jalla wa ala am na ci ñu gën a passé foofu doon ay góor dem def seen bopp ay jigéen travesti ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye ala kulli xaal mbokk lépp loo xam ne day soppi bindug yàlla gi sa karaw gi yàlla gàttal nga dem yokk ko ba mu ne bicc ca gannaaw yonente bi alayhi salaam nee na rëbbum yàlla mi ngi ànd ak yow nga jël sa dëñ yi di ko liim écarté ko rëbbum yàlla mi ngi rëbb ànd ak yow sa yiin yi nga jël ko wat ko di ko defar nam la neexe rëbbum yàlla mi ngi ànd ak yow dem di def ay tatouage ak ay jamu rëbbum yàlla mi ngi ànd ak yow lu tax yàlla moom la neex mu melal la ci couleur bi ci melokaan bi heure boo jógee ne da nga koy changé yow sa borom yàlla nga ne yàlla li nga def jaaduwut li nga def baaxut rafetut gis ngeen loolu ñu bàyyi ci xel bu baax fii ay suuratin ca melokaan ba ko soob la tànn teg la ci yow doomu aadama borom boobu nag ne déedéet yéefér yi ni ngeen xalaatee du noonu li ko waral nag mooy da ngeen di weddi bisu penc daañ ko jàng ci kanam tuuti wa ma yukazibu bihi illa kullu mu'tadin asim weddi ngeen ni daañu leen fay jëf yi ngeen di jëf ca ngal la way mbokk julit xamal ne doomu aadama lum jëf ñu fay ko ko na doon misqala zarratin ci lu baax wala misqala zarra ci lu mu gën a tuuti ci lu bon donte ne fay ba nag du fii fay ba àllaaxira la suñ borom yàlla ne moo ne day weddi ngeen fay bi et pourtant am na ay wattukat yu ànd ak yéen xaafisin di wattu lépp lu ngeen def ci lu baax di wattu lépp lu ngeen def ci lu bon suñ borom yàlla ne malaaka yu tedd lañu malaaka yoo xam ne ay bindikat lañu dara du leen rëcc te loolu mbokk lu julit war a gëm yonente bi salallahu alei wa sallam nee na heure julli fajar bu nekk suñ borom dana wàcc ci julit ñi ñaari malaaka bépp julit ñaari malaaka kii féete ndeyjoor li muy xool loo def ci lu baax mu note ci fëyam kii féete càmmooñ loo def ci lu bon mu note fi la ñuy nekk ba takkusaan yàlla wàcce yeneen ñaari malaaka muy ñeent gannaaw ba malaaka yi fi yendu yéeg jëm ci suñu boroom malaaka yi ñëw ci takkusaan fas yéene fanaan ak yow di yéggali liggéeyu ña fi yend woon ba baa suba ñeneen relevé leen muy quatre malaaka par jour yonente bi alayhi salaam moo taxoon mu ne malaaka yi bu ñu demee yàlla dana leen laaj naka ngeen bàyyee samay jaam ñu ne yàlla ñu ndey bañ demee dañ leen a fekk ñuy julli bu doon ñuy julli ca waxtu wala ñu nu ngeen leen bàyyi nu ngeen leen bàyyee ñu ne bañ leen di bàyyi it ñu ngi julli bañ leen fekkee ñu ngi julli fajar bañ leen di bàyyi ñu ngi julli tàkkusaan ñee it ñii fi fanaan bu ñëwee it yàlla bañ demee ñu ngi fekk ñu ngi julli tàkkusaan bañ leen di bàyyi ñu ngi julli fajar moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax nañu wattu julli yépp waaye rawatina fajar ak takusaan mi ngi noonu ca rawatina day doon pour ñu gis suñu borom mbokk malaaka yaa ngoogu gisuñu leen waaye aka bari tey lu ñu gisul te ay fm ñu koy dund masalan waa ji day jël portable bi bëgg a téléphoné daa ji ne ah sëñ bi fii amul réseau de mi ngi noonu dégguma la xaaral ma génn léeg-léeg mu dem ba fële ah waaw léegi baax na tey booy téléphoné ay whatsapp ak yooyu nga gis connexion bi di demee ko dikk mbokk réseau boobu di yóbbu wax ji di yóbbu message yi ndax gis nga ko gisoo ko et pourtant mi ngi fi mi ngi fi may gisoo ko naka noonu it malaaka yi borom boobu ñi ngi ànd ak yow doonte ne gisoo leen loolu la jullit war a gëm suñu borom tagg leen ne ñoom day dañoo tedd mbokk muy wone ne dañ leen war a rus julit war ngaa rus malaaka yi nga àndal ci lépp looy wax ci lépp looy jëf tey jii bu doonte ne sa famille wala li nit ñi am ay sëriñ am nga ci kenn koo xam ne moom nga gën a jox cër heure bu taxawee la nga doon wax yu bëri da nga ko seetaat la nga doon jëf yu bëri da nga ko seetaat suñ borom nag ne malaaka yi ma leen bàyyeel ñoom day dañoo doon malaaka yoo xam ne yu tedd lañu ba pare itamit li ngeen di def dara réeru leen ci yaalamuuna ma tafaluun borom bi gannaaw ba mu waxee jëf yi ak niñ koy wattoo mu xamal nit ñi nag ne léegi ñaar lañu ñu jëkk ñi mooy al abrar abrar mooy gaa yi nga xam ni nit ñu baax lañu def nañ lépp loo xam ne al birr la ak njekk suñu borom mu ni walakin al birra man amana billah wal yawmil akhiri wal kitabi wal nabiyyin mbaax mbokk mi ngi jóge ci ngëm képp koo xam ne dañ ne ab chrétien la ab yéeféer la ab nangam ñu ne ak a baax ak cam xas nañ ko mbokk julit baax bala ngaa baax da ngay gëm sa borom sellal ko loolu mooy njëlbeenu baax al bir mooy man amana billahi wal yawmil akhir waaye gannaaw ba it suñ borom mu ne mooy ña nga xam ne dañuy jël seen alal atal mala ala hubbihi di ko jox miskin ya ak jirim ya ak ñeneen waaye it wa aqama sala wa aata zaka ñi baax dëgg mooy ñi taxawal julli di joxe azaka wal muufuuna bi ahdihim ida ahadu heure bu ñu diggantee dañ koy matal wa saabirina fi lbasaai wa darra ñi nga xam ne dañuy muñ ci jamono ya nga xam ne jamonoy ñàkk la jamonoy feebar la ak jamonoy guerre mi ngi noonu waxiina albas borom bi nag ne ñii ñoo ñu dëgg ñii ñoo ñu ragal yàlla kon abraar mooy ña ngëm gëm gu sell ca jëf jëf yu baax suñu borom ne ñooñu day la fi naim ñi ngi ci xéewal xéewal googu mooy lan mbokk mooy xéewalu àdduna avant xéewalu alaxira xéewalu bàmmeel avant xéewalu alaxira suñu borom yàlla moo garanti ni man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba képp ku gëm yàlla boole jëf lu baax ku mel noonu day danaa ko dundal dund gu teey dund gu dal dund gu xéewal te loolu ci àdduna lay commencé amma boo demee bàmmeelit fekk fa xéewal mu nekk rawda min raw mi rawdatu min riyadul janna benn jardin ci jardin àjjana yi loolu nekk naim amma naim nga gën a kawe mooy bis bu la yàlla tabbale aljanna yàlla na yàlla boole ñu ca waaye mu ne it inna alfujjar ña nga xam ne dañoo génn nu topp ñoom la fi jahim ñoom ñi ngi ci mbugalum jahim donte ne jahim boobu sawara lay mate waaye xatta adduna suñ borom moo garanti ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma borom bi nee na kuy wan gannaaw alquran dundam dana doon lu xat wallahi da ngay gis ay nit ñu ñu ñee lool parce que ci liir ku ñu wax madonna buñ la laa doon jigéen bi gën a siiw ci àdduna ëpp ci succès ci sunu jamono yi madonna la bi nekk états-unis ngeen gis ñi koy taf sax seen njaga njaay ñàkk xam da ngay gis benn journal bu ngeen wax dundam waa ji di expliqué ñi nga xam ne ménagère yi ko yor di expliqué ne ñoom day leen jaaxal léeg-léeg ay guddi da koy toog di ko jooy loolu muy benn te dañu titre ci journal bi ne ki nga star bi nga xam ne jot biddiw yi moo gën a yomb jot gannaaw ba ñuy wax lekk gi muy lekk pour bañ a jël poids ay xobi salaat ak ay nàggam bala kii ne bi daal càmba ko dàqu dund mi ngi noonu ila axiri ngay gis ne loolu la mbokk président yi ngay gis boo laajee mag ñi ñoom Serigne Ndiaye dañ naan seexoo fiixoo ca mooy président yi mbokk seen dund dafa xat président du fu ko neex dem am déet bu la neexee léegi gàddu say daal dem mi géej dem sant mais président Macky Sall ndax am na droit fu ko neex dem déedéet ba pare il est conditionné des fois par un calendrier boo xam ne war nga am réunion Jakarta réunion New York réunion Nangam boo sibroo da nga nëbb sibru bi ba dem ñu ngi noonu léeg-léeg nga nekk ci jotaay yoo ala kulli xaal mbokk julit li ñu bëgg a xam rek mooy yàlla moo am secret ci ay jaamam boo xam ne nee na ki ragal yàlla moom lay fiixal ak dundam mais ki nga xam ne nii ah gëmul yàlla même bu dee Donald Trump la même bu dee milliardaire la même bu doon lu mu mën a doon am na ay galgal lu yàlla di dogal ci dundam di ko dogal ci xolam sawaun ci santeem la sawaun digganteem ak ñam bëgganteel sawaun digganteem ak njabootam sawaun lu mu mën a doon yàlla dana dugal ci dundam ay xat-xat yoo xam ne dana tax ba du féex innal fujjaara la fi jahim loolu da ngeen koy bàyyi xel bu baax ba li ci kaw bañ leen di nax mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne ñoom nag daañ dugg ci sawara boobu bis ba ñuy fay jëf yi yowma diin naam boo ko sawara kenn dugg fa àjjana kenn dugg fa ku nekk yaa ngi nekk ci wàccaay googu waa àjjana ñi faatu ñi ngi ci wàccaayam ay ñi ngi bànneexu seen biir bàmmeel waa sawara ñi ngi ci wàccaayam ay ñi ngi leen di mbugal seen biir bàmmeel borom bi nag ni waa sawara duñ fa absenté daan teew ci duñ fa génn ba faw te loolu it da nga koy gëm mbokk sawara du jeex ba faw comme àjjana du jeex ba faw comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci ay hadis yu dul jeex borom boobu nag ne lu lay mën a xamal bisu fay ba baamuwaat gannaaw ba lu lay mën a xamal bisu fay ba donte ne bis boobu nit ñi wuute nañ ci ci déggin bañ ca am mi ngi noonu da ngay dégg benn waay naan bu yowmal xiyaamee bu ñëpp toogee sëriñ diw taxaw ca kaw am déet mi ngi noonu ñu bari jàpp nañ ne quota bi yàlla di jagleel ma dem ba caam mboolem yi sénégalais ak ñeneen xaj nañ ci waaye mbokk suñu borom mu ne déedéet lu lay xamul bis penc mooy bis bi nga xam ne benn bakkan du moomal moroomu bakkanam dara benn bakkan du moomal moroomu bakkanam dara sunu yonente alayhi salaam taxaw ci tund safa daa di ne ay yéen waa mag musal leen seen bopp ci sawara allaxira day du ma leen mënal dara yéen bani hashim sama famille musalal seen bopp ci sawara allaxira mënulu ma leen fa dara fatima bint muhammad musalal sa bopp ci sawara allaxira mënulu ma la fa dara lii la mbokk war a gëm ñu ne waa mais ramm am na yowmal qiyama na am ramm am na yowmal qiyama waaye mbokk ramm go dañuy deme suñu borom mu ne man za alladi yashfau indahu illa bi izni ndax am na keneen kuy ñëw naan yàlla baal diw lu dul ko yàlla jox ndigal ngir mu wax ëllëg te foofu la nit ñi defee erreur mooy tey jii soo amee kilifa gu mag goo xam ne muy sa kilifa buñ la jàppoon tëj ci kaso bi yëpp bu ko yëgee rek day téléphoné président wala téléphoné ab magistrat ñu lijjanti say dossier génne la ñu bëri noonu lañ jàppee yowmal qiyama waaye mbokk suñu borom mu ni shafaa boobu qul lillahi shafaatu jamia neel mbooli mu ramm ci loxo yàlla la nekk yàllay xool jaam bu ko neex ne ko diw may naa li ndigal nga ñaan ma bal diw waaye kenn du ñëw ci yàlla ne ko bal diw abadan loolu ñu bàyyi ci xel bu baax laa yamliku nafsin nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah bi su keroog lépp ci yàlla lay dellu ca moo ne day lii la ñu yàlla di fàttali fukki yoon ak juróom-ñaar bis bu nekk ngaa ngi taxaw sa kanamu borom gannaaw ba nga ko taggee bàkk ko nga ne ko yàlla yaay maliki yawmi diin wala nga ne ko yaay maliki yawmi diin mbokk bis bisu pay boobee lépp sa loxo la nekk yow yàlla yàlla na doon bis bu mu ñuy teral tabal ñu àjjana non